ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet yi si ànd bi gën a ànd ak ñu ci Sans Limites di leen dalal jàmm ci seen ëttu xibaar ñu ñëw ak yéen ci li ci gën a fës. madame Marième Faye nekk première dame bu réewum euh, Sénégal indi na ay leeral euh, ci euh, feebaru xel bi nga xamante ne ni moom la ñu waxoon ne da ko amee woon ci ab interview ba mu sekkaloon ak. ak benn journaliste bu RTS. affaire disparition ki nga xamante ne moom moo di Diarry Sow ab taskati xibaar bu nekk fële ci Jeune Afrique di wuyu ci turu Mahdi Sow moom moo waxee rek ne am na ay xibaar yu mu jot ci yenn enquêteurs français yi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo affaire boobule lañ ko xamal rek moom moo di Diarry Sow jamono ji LSN suuf maanaam dara jotu ko te itam piste criminelle bi daanaka dañ ko dàkk. Thiamas nekk comédien ak co-animateur ne moom moo di Kouthia émission Kouthia Show wax na ni rek lan moo tax mu quitté émission boobule leeral yëpp nag dinañ ko indi ci jukkeek xibaar yi coronavirus fi ci euh, Sénégal te ci talaata bi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier euh, Sénégal am lu yam ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett cas yu ñeel wàllu coronavirus mu doon nag juróom fukk ak ñeent cas contact cas importé amul waaye am nañ téeméer ak fukk ak ñeent cas communautaire ba ci coronavirus Pierre Goudiaby Atepa lañu wax tax ne rek dafa infecté wu ci li nga xamante ne moom moo di euh, coronavirus ba tax na mu ngi fële ca Sowétas mbokk internet yi pàcc gën a fës ñu ngi noonu ñu ñëw ak yéen ci jukki ki xibaar yi daal di koy euh, tàmbali rek ak interview exclusive bi nga xamante ni première dame bu réewum Sénégal madame Marième Faye euh, Sall accordé na ko benn ci ay taskati xibaar bu nekk fële ca RTS radio télévision sénégalaise ni ki démb ci altine bi mu mel ni nag première dame di Seynabou Diop Sow nekk taskati xibaar fële ca RTS jot nañoo waxtaanee lu bëri ba sax nag rumeur bi nga xamante ne ni moom lañ doon dégg ci santé mentale ki li di première dame dañ doon wax nag ni dafa am li nga xamante ne moom moo di feebaru xel ba ka taskati xibaar bi laajee nag lu jëm ci wàllu woowu lam ko ca tontu rek moom moo di nam ko déggee rek la ko moom première dame daal di koy déggee maanaam rek ay rumeur la woon te amul sax nag benn commentaire boo xamante ne nii euh, mën na ko ci euh, def la muy ñaan rek moom moo di euh, mu doon ab rumeur boo xamante ne nii dafay neex yàlla sunu borom laaj boobu nag jëmoon ci état de santé mentale première dame mu mel ni rek ki la di taskati xibaar bi woon daf ko doon làkk-làkkal waaye ki la di Marième Faye Sall lam ko wax rek moom moo di waxal wax ji tax nee nañu dama dof moom nag ci loolu la sukkandiku rek daal di koy tontu li nga xamante nii moom la ko wax ñu fàttali rek ci vidéo ki nga xamante ne moom moo di première dame mu am ci nag ay gestes yoo ne ñenn ñi jàpp nañ ne euh, c'était euh, suspect moo tax rek ñenn ñi jàppoon ne ki nga xamante ne moom moo di première dame Marème Faye Sall dafa xawoon rek am li nga xamante ne nii moom moo di ab euh, feebaru xel. Pierre Goudiaby Atepa nekk ingénieur architecte la ñu wax ne dafa laale ak jàngoro yu coronavirus et que kaawam jamono ji dafa sévère puisque mu ngi fële ca Sowétas ñu fàttali rek ki la di Pierre Goudiaby Atepa mi ngi at ak euh, ñett ñi fësal xibaar bi leen nag di waa tract point sn noonu la ñuy jaare rek daal di leen jébbal communiqué 324 euh, bu euh, kuréel gu ñu dénk wàllu wér gu yaram daal di fësal tey ci talaata bi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier mu mel ni rek ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett test yi ne moom la ñu amal téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom positif mu doon nag ab taux positivité de 11 virgule cent cas positif yooyu nag doon juróom-ñeent fukk ak ñeenti cas contact cas importé amuñu ko waaye am nañ lu yem ak téeméer ak euh, fukk ak ti cas communautaire wàññi nañu itam lu yem ak téeméer ak euh, fukk juróom-ñaar ci ay euh, malade yoo xam ne hospitalisé woon nañ leen ñu ngi di leen négatif daal leen bàyyi ñu dem ndax nañoo am itam ñeent fukk ak euh, juróom-ñaar ñoom ñoo nekk fële ca Sowétas ni ki démb nag ci altine bi fukki bakkan ñoom ñoo ci jàngoro yi coronavirus ba fi mi duggee ak léegi nag ñu wàññi lu yem ak ñaar fukki junni ak ñett ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ay nit yoo xamante ne ñoo jotalaale ak jàngoro yi coronavirus ci ñoom nag fukk ak fukki junni ak juróom eh, ñeent yu teg eh, juróomi téeméer ak fanweer ak benn ci ay nit yoo xamante ne amee nañ ci tan ak juróomi eh, téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay nit yoo xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak it nag ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ñeent ci ay patients yoo xamante ne nii ba tey ñoo ngi ci loxoy docteur kuréel guñ ñu dénk wàllu wér gu yaram di dolli ñaax askanuk Sénégal ñu sàmmoon teg ndogal yi ngir ànd xeex jàngoroy coronavirus affaire disparition Diary Sow mu ngi continuer ni rek di def ay euh, bruit ki ci euh, mujj wax nag euh, di ab taskati xibaar bu tutur di Ba nekk fële ci Jeune Afrique moom nag la mu wax rek moom moo di jot na ay xibaar yoo xamante ne nii daf ko jële ci ay enquêteurs français yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk en charge de l'affaire waaye lañ ko xamal rek moom moo di affaire Diary saw mii dafay nduru ab disparition volontaire maanaam kii di Diary Sow dafa dem ci sagok boppam te jamono ji nag ñoom am nañ yaxin ne seen isu maanaam dara dalu ko mu taxit nag li nga xamante ne moom mooy piste euh, criminelle bi dañu ko euh, dàkkandi Ah, wax nañu ko itam ci jalbeen ba dinañ ñëw ci supposé bruit bi nga xamante ne moom lañu ñu annoncé woon ci diggante ki nga xamante ne moom moo di Kouthia ak Thiamas euh, nekk nag ay co-animateur émission bi la di euh, Kouthia euh, show buy daw fële ca Télé Futurs Médias ci ab plateau émission nag buy daw fële ca DTV la di Thiamas daal di indi rek ay leeral ci wàllu woowu tey wax rek ne def na juróomi at fële ci Télé Futurs Médias donc du fa gan waaye nag jàpp na ni ki nga xamante xamante ne moom moo di euh, Kouthia euh, kuy jàpp gor rek euh, moom ngay jàppale ndax nag tey jii bu fekkee ne dafa am salaire fële ci Télé Futurs Médias c'est grande c'est à à ki nga xamante ne nii moom moo di Kouthia ndax moom moo ko rek intégré ci émission bi di Kouthia Show daal di koy nag mettre à l'aise donc ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne seen diggante ñoom ñaar dafa am ay ñagas-ñagas moo tax mu quitté émission boobulee dañoo juum li tax rek mu quitté ko provisoirement mooy ko contrat de euh, publicité boo xamante ni daf ko war a honoré te sax nag ñi nga xamante ne nii dañuy ŋàññ euh, Kouthia dañu ko euh, xamul rek waaye nag dañu ko moytu bu baax a baax ndax ku baax la te tabe Euh, Khady Diatou ñu gën koo miin ci Ndeye Khady nekk euh, comédienne ci troupe euh, daaray Kocc moom mu accordé ab ITV ou chaîne bi di BBC daal di ci nag raconté naka la def rek ba survivre ci crise d'AVC bi nga xamante ne moom la defoon ci atum 2011 feebaru AVC bi nga xamante ne moom la am nag mu ngi ko dab ginnaaw bi nga xamante ne ni nekkoon ci salle de di sangu foofu la ko rek lépp dal di dalee ñaar ci ay dëkkandoom nag. mujjee ko euh, sauvé daal di woo euh, benn ci ay magam buy wutu turu Binta Ba ñu yóbbu ko rek fële ca hôpital fan ngir rek mu mën fa suivre li nga xamante ne moom moo di ay euh, traitement nday xaj nag di fàttaliku jamono ju tey wax rek ne mu ngi ci woon ci diggante dund ak dee waaye nag jotoon na nekk rek di faju ci ay centre appareillage ba xaw a am tan nag waaye jamono ji li nga xamante ne ni moom moo ko topp ba léegi rek moom moo di paralysie ci partie gauche am ci wàllug càmmoñam kàddu yi nga xamante ne nag moom la mujjee di ko wax rek te mooy que ni pare na ngir reprendre li nga xamante ne moom moo di liggéeyam maanaam rek nekk actrice comédienne ndax it nag munta toog ci giiru ko dundam yëpp ndax feebar bi nga xamante ne nii moom la amee. dañuy desandi nag ba tey ci affaire disparition ki nga xamante ne moom moo di Diary saw mu mel ni rek consulat bu Sénégal fële ci Paris jébbal na ab démenti ginnaaw bi nga xamante ne nii taskati xibaar bi la di Mehdi Ba nekk fële ca Jeune Afrique wax na ni affaire Diary Sow Sow bi disparition volontaire la démenti bi nag la muy wundu rek moom moo di jamono ji il est inapproprié ñuy wax ci affaire yu fugue pour euh, ab xale bu jigéen bu majeur ndax jàpp nañu ne wax jooju dafa ëpp ndax it nag bu ñu sukkandikoo ci législation française bépp nit boo xamante ne ni euh, ma dañ ko considéré comme majeur mën na dem fa ko neex di joxe benn yoon ay détails ci euh, fan la dem autorité consulaire yooyu nag donc ci tënk la jàpp rek moom mooy di au volontaire dañoo war a wax rek ab départ volontaire la ki di Diary Sow daal di def ci tënk nag consulat bi la mu euh, xamle rek moom moo di képp ku ci euh, wax ci mbir moomu rek na euh, tenir en compte état psychologique ki nga xamante ne moom moo di Diary Sow te ñuy bañ a rek di yàq deram wala sax ñu yàq deru famille wam te ñu def ndànk ci mbir mi ak xibaar yi nga xamante ne moom la ñu mën a joxe ci affaire boobule ndax it nag waruñoo perdre bi benn yoon ki nga xamante Ah, moom moo di doomi Sénégal bi la di Diary Sow ah, mbokkante na foofu la ji jaaree nag daal di ndaar keppe xibaar yi bëccëg bi cant ak ngërëm ñeen leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ah, di leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf